li nga xam ni xew na tey dañ ciy sant yàlla di wax rek ni final bi ñu ngi ko war a joué diggante Ndofnane ak JAC biñ ñu waxee li nga xam ni loolu lañu bëgg yaakaar nañ ni lépp loo xam ni mën nañ ko daf nañ ko kon boog damay lim rek pour que nit ñi nga xam ni ñoo fi teew ñu xamoon ni li ñu seqoon ak zone bi yàlla suturaal nañu ba ñu daf ko ak jàmm Ce que vous c'est que nous avons des frais d'organisation. Nous avons a 200 000. Donc, le président de la zone enveloppe 200 000 pour pour frais d'organisation zone. Nous avons nous avons 28 cadets. Nous avons 100 000 francs. Enveloppe 100 000 banques pour 28 cadets vainqueur cadet, nous avons nous 150 000. Donc, enveloppe baguini. Nous avons seigneurie, vainqueur, nous avons 300 000. Donc, enveloppe 300 000 Bangini pour vainqueur seigneur. Vaincu seigneur, nous avons enveloppe 200 000. Enveloppe baguini, donc globalement, nous avons 950 000 yo xamni ni des na ci frais d'organisation ak li nga xamni mom équipes. wara jox équipe ci aussi ay jeux de maillot donc jeux de maillot sont ngi pour quatre équipes yi nga xamni ñoy football tay deux équipes cadettes deux équipes seniors donc les jeux de maillot sont là pour chaque ASC donc c'est des équipements complets maillot culotte et bas Boulot, loolu chaque équipe dinañ ko jox ballon de foot ballon de foot il y en a quatre am na loo xam sunu la mais musul bokk ce cahier de charge moy médaille yi nga xamni médaille d'or ak médaille d'argent pour vainqueur senior bi ak vaincu bi lol lepp nak ñu tëje ko ak coupe bi nga xam ni moom moo nekk nii mooy kubu senior bi donc mu nekk coupe boo xam ni DG ONFP moom moo ko jox zone 2 beneen coupe baa ngi nii pour les équipes cadettes donc coupe cadette baa ngi nii pour zone 2 kon boog dañuy sant yàlla mi nga xamni nous may nañu ñu diggé dara ba paré Nous ko diggé yalla dogal ñu mën ba mais damay profiter ci occasion bi nga pour lancer un appel au président de Khalidou. Kalidou développement du Sénégal développement de Djourbel, mënul jaar fenn fudul ci jeunesse tey président Macky Sall tekna ay programme yu bari yo xamni war nañ ci mëna sukkandiku pour développer sunu ay gox kon président man dama lay lancer un appel pour que ñu mëna a entre ONFP ak ODCAV bu Diourbel mu nekk lo xamni aussi dinañ xol nan lañ koy généraliser au niveau national ba nga xamanteni nous bu jotatee duñu ñu yem ci organiser ay match de foot mais dinañu fexe jël au niveau des ASC en fonction des zones de développement économique maanaam gox bu nekk li nga xam ni sa activité économique ñu liggéey ak Odecav, ONFP financer ay formation yoo xam ni dañ koy jox ASC formation yooyu buñ ko joxé ASC yi limuy muy jur mooy ASC yi seen parce que lolu yag naa ko wax yag na wax ni biñuy def nawetaan ak légui yag na bo démé Dakar da ngay gis ASC yo xamné buñu amé final duñu ñu laaj kenn deureum ñom ñoy defal sen bop sen lépp mais lutax ñu am ko parce que ASC bi dafa am une activité économique génératrice de revenus lolu la bëgg ñu am ko Jurbel yag na ko wax nak c'est pas la première fois mais yalla tek nañu tay fo xamni xeyna xëy na dinañ a xëcc ODCAV ba ñu mën a waxtaan si loolu mën liggéey ba ASC bu nekk nga am une activité économique bo xamni ding ci mëna si am ay revenus pour que yu melni bu amaté ñom ñu mëna jël sen bop en charge kon lolu dafa nekk lo xamni lu am importance la président Macky Sall tey li wax capital humain mu nekk deuxième axe ci plan Sénégal émergent mon mooy que ni li wax qualification Manam, ñu fexe ba ndaw ñi ak jigéen ñi ñu am métier am métier nag kenn du ko te amuloo formation tey bi ñuy tabax Ila Touba am ne jeunes yu bari yoo xam ni bëggoon nañu liggéey mais nous fa liggéey parce que ñi construction bi dañoo am critères conditions Si bu jeunes pas de diplôme de qualification projet yu bari dina bénéficier wu. qui est président formation professionnelle nañu fexe ba président le ministère de la formation professionnelle de l'emploi et de l'artisanat jox notre frère et ami monsieur le ministre Dame Diop jël ku président Macky Sall mu Djel ku mel man ma ONFP lolu dafa nek lo xamni djourbel dara kon djurbel, lumu amul ci formation professionnelle dafa fek man mu neex ma wala fek mu neex monsieur le ministre Dame Diop fi may jeexalee mooy si ministre Dame Diop damay wax yéen journalistes yi di ko wax suma ay nit que ni diggante le ministre Dame Diop ak docteur Souleymane Soumaré je le dis monsieur Dame c'est mon ministre et c'est mon patron te loolu bëgg naa ñëpp xam ko Diourbel nañu fexe ba dox wala wax lo xamni moy rataxal rattaxal yi nañu fexé ba dox ak wax lo xamni moy tax ku nek lii sa pour Jurbel jëm kanam nga mën ko liggéey mais buñu bëggé indi problème diggante ministre Dame job, ak docteur Soumaré man damay wax de manière solennelle que problème amu fi problème musu fi am te inshallah rabbi problème du fi am monsieur le ministre Dame job, c'est mon frère suma wowe woowee dina dam parce que je suis sous sa tutelle technique il faut que nit ñi xam lolu té duma permettre kenn wala may-may kenn muy indi ben grain de sable bu ndaw suma ak mom je pense que buñu dafé defee noonu liggéeyee ñun ñi nga xam ni ñoy responsable politique yi nek au niveau de Diourbel di liggéeyal président Macky Sall wale nou boku kowali chanbe nou boku yakar nyoun nyop denyo wara boku ndayi boku bayi paske prezident Makisal dese le tou nyou dara degle nyoun kwen nyan yenen post deje paske amne fi ay responsabili yo khamni amne nyou kompetans wane nyou mwona am ay post de responsabilite men liga khamni djot nou dugou djurbel man je paske nyoun nyoun nou bou nyou ligaye ak nyong khamni ame goun nou nyou boku ligaye, nyoun nyop pour un seul but, un seul objectif. D'abord, le développement de Djourbel. Parce que nous nous il a def y wax ni politiciens ont bari am ndomba yu faire yu bari yu dañu mais et je pense que génération bi nga xam de fi dafa wara génération boo xam ni a mais du Djourbel. donc l'eau. bu ñu ko dafee taxaw si yaakaar naa ni non seulement Diourbel dina fi jaar suqaliku mais aussi li nga xam ni bëgg nañ ko sur le plan politique dinañ ko daf loolu dafa nekk loo xam ni lu ma gëm la lu ma yàgg wax la te itam dafa nekk loo xam ni lu may défendre la toujours si côté unité boobu nga xam ni wax naa ko dafa nekk loo xam ni man lu ma ñor la am na loo xam ni xëy na mi ngi rattax wala mi ngi dëgër diggante ay responsable lii sama rôle man mooy yore suma bâton de pèlerin fexe ba responsable yëpp retrouvé wu nekk benn biir Thierno Kandji luñ ma jiital jiital jiital dama fi am ay kilifa su may kilifa mooy taajaareetu saar ak mama Oumou Ba amul dara lu may yëkkati biir Thierno Kandji te duma leen woo waxtaan seeg ñoom ñu ñaanal ma si jox ma si ndigal ma mën ko daf wala ma mën ko dox maa ngi nuyu aussi ki nga xam ni mooy le DG Moustapha Guèye muy DG Crous mu nekk aussi nit koo xam ni liggéey na lu bari au niveau de Diourbel te ba léegi mi ngi liggéey Diourbel li ma gis ni jël na ko ci ay emploi au niveau de Diourbel en tout cas man dafaguma ko te gis naa ni ñu bari dafaguñu ko kon boog DG Moustapha Guèye aussi mi ngi liggéey lu rëy jurbel mi ngi gën a liggéey lu rëy jurbel mais man bala may kontaan dëgg dëgg dëgg tous les responsables ñu retrouver wu nekk benn loolu mooy tax li ñu bëgg jurbel ñu mën ko am kon boog maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp képp koo xam ne waroon naa tudd sa tour te tudduma ko maa ngi lay jéggalu di bereel remerciement Ndeye Maguette Wade nga xam ni nekkoon na ci organisation bi tey ba lépp loo xam ni am na fi côté Agnac lu demee noonu moom moo ko géré woon moom moo ko yoroon jóge ba Dakar donc maa ngi koy remercier ak équipe bi nga xam ne ñoom la àndaloon di remercier aussi fanfare nationale bi nga xam ni jaar nañ fi bégal ñu kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier encore une fois le comité électoral de Thierno Kandji je suis à votre disposition je suis votre serviteur et je suis à votre écoute